weeru bonus la bonus nag boo ko xamul defe naa léeg-léeg ku yor téléphone da nga gis ñu envoyé la message ne tey ku jënd crédit 1000 francs am nga 2000 weeru koor nag mooy benn boo def ñu fay la fukk yàlla toll noonu te lim yor du yeex yàlla nañu yàlla boole ci ñi muy fulal seeni jëf euh, mbokk yi weer wi ñu nekk nag ku nekk xam na ni mooy anniversaire u alquran ndax yàlla wax na ni unzila fiihi alquran ci la wàcce woon alquran alquran jooju nag Euh, yàlla bëgg ñoo orienté ñu tege ci yoon moo tax mu def ko catalogue bi nga xam ne mooy doxal adduna bi euh, mbokk yi alquran yàlla wax na ci ne inna hada alqurana yahdi lillati hiya aqwam wa yubassir almuminina alladina yaamaluuna alsalihat yàlla wax na ci alquran ne alquran jooju ma leen jox day mooy orientation bi nga xam ne ku ci teg sa tànk da dem mais nag malheureusement nit ñi li ci ëpp léegi daanaka jàngatuñu alquran Euh, parce que ku dem ba li ngay attewoo génn nga ci alxuraan daanaka sa jullit dañu koy seet wala mën nañ la tuddee tooñkat mbaa kàccoor euh, beneen bi ci des yàlla da baamu na ko ci alxuraan waxaat ne afala yatadabbaruuna alxuraana am ala qulubihim axfaaluha moo ndax yéen da ngeen dul jàng al alxuraan wala seen xol yi dañ cee def ay kànnaar xol bu ñu def kànnaar nag mbokk yi du mën a dékku alxuraan mbaa boog du ko taataan teyit nag alxuraan mbokk yi mooy téere boo xam ne yàlla nga ko jëlee ci baytul izza euh, jëlee ko ci lawhul mahfuz wàcce ko ci baytul izza mu nekk fa diiru vingt trois ans di wàcc xew-xew par xew-xew ci diiru li fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def lu ñu war a nose te jaaxal ko yàlla wàcce ca aaya jàngal ko ko ne ko defeel nii moo tax yàlla wax na ko ci alquran ne ko inna sa nulqi alayka xawlan saqilan inna naasiata alleyli hiya ashaddu wat an wa aqwamu qiila yàlla wax na ko ci alquran ne ko man yàlla ma sànni ci yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kàddu gu diis muy alquran diisaayu alquran nag mbokk yi mu ne sut ko peese mais yëg-yëg la ndax yàlla wax na ci alquran ne law anzalna hada alqurana ala jabalin la raaytahu xaashian mutasaddian min xashyatillahi yàlla wax na ci alquran ne alquran jox yéen doomu aadama yéen nit jinne su ma ko wàcce woon ci kaw montagne yi danga gis ne montagne yi dañuy mujj xar wala sax danga gis montagne boo xam ne ragal yàlla dana ko jàpp ba fu mu dëkk di jooy moo tax euh, yàlla bi muy misaal xolu yéeféer yi ci dëgër gu mu dëgër ci ñàkk nangu alquran daf ko mingale ak aw doj waaw daf ko méngale ak aw doj wala sax ba mu yàgg mu ne doj sax a gën a nooy ndax boo jëlee lu dëgër dóor ca dana toj kon mbokk jullit référence am pire ci alxuraan la nekk yàlla nag wax na ko ba noppi te dootu ko baamu moo tax boroom xam-xam yi dañuy wax ne ku bëgg di wax ak sa borom foo toll mu di la jël audience nga di ko déy say soxla dangay ngay taqoo julli parce que yàlla wax na ne was jot wax tarib saa boo sujjootee rek yëgal ne jege nga ma beneen bi ci des mooy boroom xam-xam yi dañu waxaat ne alxuraan mooy téere boo xam ni soo bëggee ku la yedd ci sa ruq ba say rongañ tuuru te doo kenn na nga jàng alxuraan parce que lu la jubbante lu nekk ma nga ca moo tax mbokk yi alxuraan euh, mooy téere bi nga xam ne huwal mizaanu taarifu minhu ma xawayta min al aswaaqi wa sadami alxuraan daal mooy balance bi nga xam ne ci la jullit di peser boppam xam fan la toll ci yàlla wala mu xam boog fan la yàlla tollu ci moom te léeg-léeg nag day baax ndax yonent bi daana wax ni xaasibu si bu an fu sa sa la tuxaasabu dee leen régler seen bopp lu jiitu yàlla di leen régler parce que ku régler sa bopp ci àddina boo demee àllaaxira bu ñu la régler dangay ngay perte régler sa bopp ci àddina nag mooy léeg-léeg nga wéet ci ruq seet yi nga jëfal yàlla yi nga ñemee yóbbu bàmmeel nga defaraat ko ba mu jekk loo ca mën a baamu nga baamu ko waaye nga seetit sa jëf yu safaanu yi yi nga xam ne wóor na la ni boo ko yóbbaalee bàmmeel du baax nga rectifier ko fas yéenaa tuub def istixfaar moo tax alquran yàlla wax na ko ca alif bi nga xam ne moom la ñuy dal suratul baqara ne alif lam mim dalika alkitaabu laa rayba fihi hudan lil muttaqin yàlla nee na man yàlla wàccel naa leen téere boo xam ne njub moo tax ma wàccel leen ko lépp luñ mën a werante génn na ci alquran alquran dara lu ñuy werante nekku ca ndax yàlla wax na ca biir sax ne qul law kaana min indi gayrillahi la wajadu fiha ixtilaafan kasiran yàlla wax na ne téere bi ma leen jox su jógee woon ci keneen ku dul man seen boroom day da ngeen ci fekk ne téere bi dana am kon werante yu baree baree bare waaye nag alxuraan a ngi noonu mbokk yi ñu fas yéene di ko defaat ay diraasaat ci biir weeru koor wi di ko jàngaat ndax mooy weeru anniversaire am te it nag yàlla dañuy wax ne benn symbole képp la fi dese wala ñaar la fi dese woon muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak alxuraan te yonent bi bi maa in tamassaktum biha kitaaballahi wa sunnati maa ngi dem woon leen gannaaw waaye soriwuma leen bàyyil naa leen fi ñaari mbir ñaari mbir yi mooy ban mooy alquran ak sunna su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yal nañu yàlla def ay dëgg-dëgg jullit piir yal nañu yàlla royloo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñaan yàlla yi mu teg suñu tànk ci sunna ñu bañ koo déraper yàlla bu seytaane mën ci ñun dara yàlla bu mu am ci ñun cër wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Thank you.